Salut, bienvenue sur ma chaîne YouTube Zokanji. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez et activez la cloche de notification pour ne pas rater aucune de mes vidéos. damay ñëw pour wan leen nan la ñuy def ba traduire thème bi nga télécharger benn thème wala nga insérer benn thème wala nga jënd benn thème ak thème bu mu mënti doon thème bi nekk en anglais wala mu nekk langue bu nekk nga bëgg ko traduire en français. dama lay woon méthode bi nga xamante ni moom ngay utiliser pour traduire thème bi yëpp en français comme exemple thème bi ma yore fii boo xoolee anglais kese nga fi gis home store mean woman accessory account about contact yëpp en anglais la mais nan la ñuy def ba traduire lépp en français sans autant que nga nekk fii di jël texte bi par benn benn pour traduire ko bon boo ko bëggee def na ngay dem tableau de bord dañuy dem tableau de bord bu ñu demee tableau de bord ñu daal dem extension plugin bu ñu demee extension mën nañu cliquer sax ajouté bu ñu demee extension ñu daal di recherche ajouter une extension ñu daal di recherche bind loco daal di tuuti boo xoolee boo bindee locaux rek dalay indi locaux translate ak automatique translate ñu daal di installé locaux translate bi daal di installé aussi tamit automatique translate bi ñu daal di patienté après ñu active locaux translate bi buñ ko active automatiquement dañu indi ci page extension bi après boo xoolee installé woon nañ automatic translate bi moo nekk nii ñu daal di koy activer euh, buñ ko activer boo xoolee suñu tableau de bord am nañ ko loco translate mi ngi nii après ñu daal di choisir thème comme thème lañ bëgg a traduire thème bi lépp lañ bëgg a traduire en français ñu cliquer thème boo xoolee suñ thème bi mi ngi nekk nii astra la tudd ñu daal di cliquer astra buñ cliquer boo xoolee fii mi ngi naan ñu français cent pour cent affaire yooyu noonu léegi ñun dañuy dem nouvelle langue choisissez une langue langue de WordPress nga daal di choisir French France ñu choisir French France ñu daal di cliquer commencer la traduction après fii boo xoolee dañuy texte texte source yëpp texte yi am ci suñu thème bi yëpp la ñuy afficher léegi dañuy cliquer auto translate bi après ñu cliquer Yandex translate après boo xoolee suñu traduction mi ngi nii astra astra yëpp instant bi traduire traduire gu ko mais en anglais la léegi ci fr bi français bi ci la ñuy cliquer mu ajouter ñu français ci côté bi ñu cliquer français ñu daal di patienter mu traduire texte yëpp en français léegi boo xoolee texte yëpp traduire na ko en français boo xoolee retourne to poste retourne à la poste ñu ngi nii boo xoolee en anglais yi ñoo nekk nii français yi ñoo nekk nii traduire na lépp en français après dañu cliquer merge translation ñu cliquer fii ñu cliquer fii euh, lii la ñu indil après ñu daal di cocher écraser les traductions existantes ba pare cliquer star léegi bu ñu xoolee suñu thème bi yëpp la traduire yëpp la traduire boo xoolee fii activate import di plugin boo xoolee mi ngi naan fii activer l'opérateur plugin fii nii tamit dinañ am possibilité pour bu dee dafa am erreur ñu daal di koy modifier ñu xoolee dañuy indi traduction en en anglais bi fii nii indi ñu fii nii en français buñ buñ neexee fii nii ñu modifier comme fii L majuscule la ñu des L minuscule i bi tamit i minuscule la war a doon ñu def i minuscule boo xoolee automatiquement day changer fii suñ paree modifier def suñu modification yëpp dañuy en enregistrer bon gars yi lii moo nekkoon tuto tey bi di la wax que ni ah, si vous n'êtes pas encore abonné abonnez activez la cloche de notification pour ne pas rater aucune de main vidéos ciao